ginnaaw loolu ku ngëmam néew na ngeen ko nangu te bañ a werante ak moom ci lu lënt ndax am na ku xalaat ne mën na lekk ñam wu nekk fekk ku ngëmam néew du lekk yàpp waaye lëjum rekk lay lekk kiy lekk lu nekk bu mu xeeb ki ko dul def naka noonu itam ku dul lekk yàpp bu mu teg tooñ ki koy lekk ndax yàlla nangu na leen ñoom ñaar koo teg sa bopp ba di ko teg tooñ jaamu jàmbur la mu taxaw ci liggéeyam mbaa mu sàggane ko moom ak sangam la waaye dina jub ndax boroom bi am na doole taxawal ko ci njub noonu itam am na ñiy tànn bés ak ñi yemale bés yépp na ku nekk xam bu wér li muy def te jàpp ci ndaxte kuy tànni bis mi ngi koy def ngir màggal boroom bi kiy lekk lu nekkit mi ngi koy def ngir màggal borom bi loolu leer na ndax day sant yàlla te it ki bañ a lekk yàpp mi ngi koy def ngir màggal borom bi di ko sant kenn ci nu dundul ngir boppam kenn deewul it ngir boppam dañuy dund ngir màggal borom bi dee it ngir màggal ko kon nag nuy dund mbaa nu dee noo ngi ci borom bi loolu sax moo waral kirist dee te dundaat ngir mën a nekk boroomu ñi dee ak ñiy dund yow nag lu tax ngay teg sa moroom tooñ lu tax nga koy xeeb xanaa nun ñépp dañu dul daje ji fa kanamu yàlla ngir mu layoo ak nun ndaxte mbind mi tëral na lii borom bi nee na ni mu wóore ne maa ngi dund ni la wóore ne ñépp dinañu ma sukkal te ku nekk seede ne maay yàlla noonu ku nekk ci nun dinga lay fa yàlla ci lépp loo mës a def kon nanu bàyyee tegante tooñ waaye nu fas yéene moytu lépp lu nekk fiir guy yóbbe sunu moroom bàkkaar xam naa ni amul wenn ñam wu sellul ndax yeesu boroom bi xamal na ma loolu waaye loo yaakaar ne sellul ci yow la sellul soo dee lekk luy indil sa moroom tiis génn nga ci mbëggeel yow nag bul réeral sa moroom ci sa ñam ndax kirist dee na ngir moom bu sa njariñ jur wax ju ñaaw ndaxte bokk ci nguuru yàlla jotewul dara ak lu nuy lekk mbaa lu nuy naan nguuru yàlla mooy jub ci kanamu yàlla te am mbég ak jàmm ci doole xel mu sell mi kiy jaamoo noonu kirist moo neex yàlla ak nit ñi kon nag nanu wut luy indi jàmm te yëkkati mu sunu moroom bu sa ñam yàq jëfu yàlla bépp ñam sell na ci kanamu yàlla ci lu wér waaye képp ku lekk luy yàq sa ngëmu moroom def nga lu bon lii sa waru mooy nga bañ a fiir sa moroom ci yàpp mbaa ci biiñ mbaa ci leneen lu mu mën a doon su fekkee sa ngëm dëgër na wone ko ci sa diggante ak yàlla kiy nangu te du ci sikkal boppam kooku barkeel na waaye kuy lekk ñam te am ci xel ñaar def nga bàkkaar ndax sa ngëm mu fa ndaxte jëf ju àndul ak ngëm bàkkaar la